li ci yéenekaay yi li ci yéenekaay yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi yéene yi ñu daal di koy door na Sénégal démb la doon màggal feetu indépendance bi mu nekk bis bi nga xam ne ci lañ moomee suñu bopp yéene ko di quotidien nag dañuy xamal ne nag feetu indépendance ko màggalee démb rafet na lool école yi ak militaires yi wane nañ ci seen bopp waaye weesoo loolu Sénégal li mu am ci ngànnaay wane na ko la tribune kaay di yéene xamal ne feet gi daal nuñ rafet na trop yéene kaay mi nag di ñu xam ne défilé bi bu neexee ci Macky Sall la ndax armée Sénégal jox na leen ay jumtukaay libération nag jëg frontière jox kaddu Donald Donald Trump di njiit réew bu Amérique moom nag ma ngay tagg réew bu Sénégal di xam nag ay référence lañ ci Afrique suuf a nag samp ab laajam nag jëmale nag moom la def muy discours boo xam da koo tënk daanaka ci fukki minute waaye yéen bi di ñu xamal ne laal na ci ay ponk yu bëri vox populi di ñu xamal ne tey ji la Mouhamed Boun Abdallah Dionne mi fi nekkoon ilimaani jëwriñ tey ji la war a tekki ndombal tànk ngir ñu mën a taxawalaat gouvernement bu

ak Ama Baldé ñuy laaj nag yàggee nag ci promoteur yi la jërë ngeen jëf ba beneen yoon. ci yéen kaay yi.